wax waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokk taalibe yi man seen uh, sœur may ñëw tey uh, soxna Binta di leen yëgal forum international sur la diaspora mouride bi nga xamante ni waa daayira Ansar àdduna wërngal képp waaye soqi ko fële ci itali ñoo leen koy indil muy deuxième édition bi incha allah ñu fas yéene ko def nag week-end bi ñu jëm si incha allah fas yéene ko tàmbali ci àjjuma bi def ko ci samedi bi ak dimanche bi chaque jour rek muy tàmbali 15 heures euh, di jeex 17 heures pour première session bi heure d'Italie waaye aussi deuxième session bi di tàmbalee vingt heures di jeex 23 heures ba tey ci heure d'Italie incha allah chaque jour rek ñu fas yéene leen indil ñaari session macha allah session yi nag ñu ngi ko fas yéene tënk di ci waxtaanee ay tomb yu am solo. ci ajjuma bi fas yéene nañoo waxtaane tomb bi nga xamante ni mooy ana càkkutéef yi nga xamante ni jël nañ ko ngir ñoŋal mbindum Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasool ak li nga xamante ni ki ni mooy organisation ba ca war authentification ba ca war lépp rek ñu fas yéene ko waxtaane mu jëm ci xasida yi Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasool bi ci ajjuma ba waaye ci gaaw bi ñu fas yéene waxtaane taxawaayu Cheikh Abdoulaye Dieye ci yoonu murit waaye tamit tasaare bi nga xamante ne tasaare na ko liggéeyub Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ak ay njàngaleem àdduna wërngal képp euh, dimanche bi nag ñu fas yéene waxtaane li nga xamante ni moom mooy ana lan mooy murit yoonu murit bi lan mooy xàmmeekaay yi nga xamante ni képp kuy doore ñëw ci yoon wi wala nga tuub ñëw ci yoon wi xàmmeekaay yooyu war nga ko mën a xam boo duggee ci yoon wi pour euh, tegte la ci dafay yomb waaye itam ñu bëgg leen wan tamit lan mooy xàmmeekaayu ana mooy sëriñ bi ana mooy cheikh bi nga xamante ni moo la war a tette ci yoon bi waaye tamit ñu bëgg aussi waxtaanee xàmmeekaayu melokaan yi nga xamante ni moom la taalibe bi war a mën a am ngir yombal li nga xamante ni ki ni moom mooy compréhension bi war a am ci ki nga xamante ni ku bees la ci yoonu murid programme bi nag nii lañ ko fas yéenee tëralee ci ajuma bi ñu fas yéenee jël ay kàddu dalal fas yéene ko def waaye ki ñu koy defal nag mooy soxna Ali Elisabetta Aser bi moo fas yéene def kàddu dalal yooyu ci pàcc bu njëkk bi ki ñu koy modereel mooy Serigne Pape Demba Dia ak soxna Fatima Alice Fatima Sène bu boobaa itam dinañ am ay intervenant intervenant yi di doon professeur Mouhamadou Galay Ndiaye Serigne Abdallah Fahmi Serigne Moussa Dieng Kala ak Serigne Khadim Ndiaye deuxième partie bi ki ñu koy modéreel mooy Serigne Cheikh Mbacké Mboup waaye bu boobaa itam intervenant yi dina doon Serigne Chouaib kebe Serigne Sam buso docteur Khadim Lo ak Serigne Ahmadou Mbacké contributeurs yi nag dinañ doon Serigne Mouhamadan Mbacké Serigne Mourtada Silla Serigne Abdoulahi buso professeur Assane Gueye ak Serigne Mamoun Ndiaye donc loolu moom mooy bis bu njëkk bi nga xamante ni dañu war a waxtaanee ana nu ñuy def ba ñoŋal mbindum Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasoul classifié ko organisé ko muy xasida Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasoul yi. ñu ñëw ci ñaareelu fan bi di la 11 septembre 2021 bu boobaa dinañ am ay mots ak accueil ak hommage di sargal ki nga xamante ni mooy Cheikh Abdoulaye Dieye loolu nag ki ñu koy defal mooy soxna may Maymuna Virginia. waaye bu ñu ñëwee ci pàcc bu njëkk bi ki ñu koy modéreel mooy sëriñ Jibril Ndaw ak soxna alis Fatima intervenant yi doon sëriñ Cheikh Bamba Dieye sëriñ Cheikh Sidi Dieye sëriñ Moustapha Diatara sëriñ Mbakiyou Faye ak docteur Khadim Bamba Diagne bu boobaa aussi dinañ am ay témoignages yu jëm ci sëriñ Cheikh Abdoulaye Dieye kàddu seede yoo xamante ni dina jóg jógee ci sëriñ Cheikhouna Bara Fallilou soxna Etiena Judor Mariama Serigne Mohamed Iqbal Abdallah soxna Nancy Laydik bu Amérique ñooñu ñooy jël ci pàcc bu njëkk bi ci samedi bi bu boobaa tamit deuxième partie bi comme ni ma leen koy waxee deuxième session bi fas yéene tàmbali 20 ba 23 heures heure Italie bu boobaa dinañ am ay contribution yu jógee ci professeur Assane Mboup Serigne Khadim Mbacké Abbas Serigne Djili Ba Majalis ak professeur Mourtala Mboup dinañ amit ay kàddug seede yu jóge ci sëriñ Jamil Johor soxna maam Fazul Rahima soxna Rajiana Moussa sëriñ ah, soxna Aliya Sayid Guljar ak sëriñ Baye Rafex bu Ilmouris macha allah ñu ñëw nag léegi ci troisième journée bi mu journée bi nga xamante ne ci la ñu fas yéene waxtaane ana mooy yoonu murit lan mooy melokaanu sëriñ bi lay tette ci yoonu murit waaye tamit lan moo war a doon melokaanu taalibe bi nga xamante ni moom moo tegu ci yoonu murit bu boobaa nag euh, man mii maa koy modéré soxna Binta Saliha Diop ànd ko ak soxna Angela Mambuso bu itali intervenant yi nara doon sëriñ Moustapha Mbacké Gaynde Fatma sëriñ Abdou Mbacké Mourtada sëriñ Lamine Mbacké Thierno ak professeur Djibi Diagne allah dinañ jot tamit ay contribution yu jóge ci Serigne Gora jóg ak docteur Khadim Bamba pacc bu mujj bi deuxième partie bi fas yéene doon tamit beneen modération bu may def ànd ko ak Serigne Moustapha contribution yi fas yéene jóge ci professeur Mor Loum Serigne Moustapha Cissé Serigne Yankoba Badiane Serigne Daouda Soxna Maguette Silla Serigne Victorio Abdourahmane Serigne Cheikh Fatma Mbacké Omar Serigne Omar Ba ak Serigne Sidi Ndiaye kon lii moom mooy programme bi nga xamante ni waa daayira in Ansar bu àdduna bi wërngal képp fas yéene nañ leen ko indi le 10 septembre di week-end bii ñu ñëw jëm lu 12 septembre di dimanche ba ci àjjuma ba ba ca dimanche ba fas yéene waxtaanee ñetti pàcc yi nga xamante ni moom lañ leen wax léegi te ñetti pàcc yi di nan la ñuy sàmmee mbindum Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul organiser ko classifier ko beneen pàcc bi doon sargal ki nga xamante ni ki ni exemple la ci yoonu tasaare jàngaleeb Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ci àdduna warngal képp muy sëriñ Cheikh Abdoulaye Dieye waaye tamit ñetteelu pàcc ba ca dimanche ba ñu waxtaanee ana lan mooy yoonu murit lan mooy melokaanu sëriñ bi nga xamante ni moom la ñu war a topp ci yoonu murit lan moo war a doon melokaanu taalibe incha allah képp kuy membre Ansar di ci woo bépp taalibe di leen ñaan ñu daje weekend bii incha allah. ngir mën a waxtaanee xitma bu am solo bi nga xamante ne moom la ñuy def ci àdduna bi wërngal képp di ñaan yàlla nangul ñu ko incha allah rabbi kon bu leen ko kenn nettali incha allah ci weekend bi rek ngeen ñëw ñu ñëpp ñu bokk ko ndax ñu àndandoo tasaare njàngaleem Cheikh Ahmadou Bamba xaadimu rasool ci àdduna bi wërngal képp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu allahuma salli ala sayyidina wa maulana muhammad alhamdulillahi alkarimi silmilan alastifad bifrodin wa sunan sakartuhu liannu qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani